Euh, comme nous ko mhm. avant sax élection y mhm. gouverneur sachant que Ousmane Sonko mais mhm. si si si euh, a donné raison ki Ousmane Sonko durant tout long justement du processus euh, tout au long de ces accusations largement Ousmane Sonko je pense pas

donc est-ce que l'annonce ou euh, nga de publication des rapports. Mm. de la cour des comptes n'est un moyen pour permettre à ñi nga l'union à ah, euh, euh, il faut ñu mm-hmm. il faut parce que dañ leen mm-hmm. protégé. Mm-hmm. le président Macky a toujours peut-être mis son coude sur certains rapports. d'accord D'où woon en fait. Macky moom woon suñu xaalis. Mhm. xaalisu askan wi la. Mhm. en fait euh, il faut une changer un peu li nga xam nekk mentalité parce ba si euh, le président Bassirou Diomaye Faye ñun askan wi ñooy seen patron. Mhm. le peuple sénégalais. da leen ne da leen dénk. pour ñu gérer suñu xaalis. da leen dénk pour ñu téye suñu réew. pour ñu matal suñu wàllu diplomatie. c'est vrai donc nous ñooy un patron nous ñoo leen chaque mois. Uh-huh. li fait fay ak suñuy impôts lay li uh-huh. suñu la encore uh-huh. une fois donc Macky Sall n'avait aucune raison encore une fois de protéger ces hommes. en mettant son coude sur ces dossiers sur ces rapports mais en euh, euh, a dara yàggul tey ñi ngi nii euh, yëf na dang et que tout le ngi commencé à nag rapport yi ñi ngi épinglé mhm. euh, lu bari mi ngi leer mhm. si askan wi nga xam ni itam ñoo désiré euh, peut-être euh, xam ce qui en est réellement si dossier yi nga xam ni itam ñeel na OFNAC coup des comptes ba si li nga xam ne que moo di inspection générale d'État encore une fois uh-huh. ñiy xaar li nga xam ne que moo di ay prolongation allant dans sens su ma ne uh-huh. prolongation ne mu yëf yi bu uh-huh. si bu mu yem fii il faut que ñu convoqué li nga xamné que modi euh, ces épinglés képp ki nga xamni tam amana ne da nga mhm. ak walu yonal pas pour encore une fois peut-être wax ñu yéen def mais ngeen dem léral c'est à scène der et que je pense que ça, c'est leur bénéfice quand même mhm. ñu ñëw tout ci les responsabilités yi nga xamante ne moom la xaar ci nga xamné modi le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko mhm. alors Ousmane Sonko euh ci mom lay commencer Ousmane Sonko euh ba mu doon yóbbu yëf yi si kanam yoon ak wàllu yoonal quand on se rappelle mhm. le jour du 10 avril 2018 mhm. kenn xalaatul woon que ni euh, lu nu mel euh, mënoon a am lu toll ni 94 milliards am sax ñu mhm. analyse woon que ni peut-être euh, de ko doon def juste peut-être dafa nekkoon li nga xam ne que moo un opposant bu président Macky Sall et que ñoom Mamour Diallo ñëpp affilié wu si kaw président Macky Sall mais l'histoire aujourd'hui jox na ko li nga xamne que raison mhm. donc Sonko en tant que euh, inspecteur et domaine à sa qualité d'inspecteur et domaine mhm. lu si ëpp dina ko daal di xam surtout si wàllu suuf parce que mhm. aussi Mamour Diallo yi fii si wàllu suuf euh, ak euh, bann boobu lañ leen daal di li nga xam ne que moo di mettre la main encore une fois ba tey waxuñu ñoo def mais en tout cas mu ne dem à seen bopp le chef du gouvernement euh, mom moy garant li nga xamné que du gouvernement bi mom ci aussi moy garant li nga xamné que modi administration yi mhm. te su administration mu ne sud li nga xamné que modi l'administration pénitentiaire l'administration mhm. police gendarmerie et tant d'autres et tant d'autres mhm. euh, dina ci am li nga xamné que modi kadom donc Ousmane Sonko dans le souci de clarifier exactement les choses mu ne ni il va sans doute euh, taxaw si walu wunu mel euh, pas taw pour le pas taw bëgg pour bëgg leen mais quand même di dit que mhm. li nga que euh, permettra le gouvernement bu parce que que ni euh, le pouvoir est influencer. Mhm. des fois nga nga yek et je pense que cela va servir ben leçon li nga xamné ne mu di gouvernement bu yees bi pour ñu baye xel bu baax baax. képp ki nga xam itam jël nga fi euh, ne serait-ce que benn fifteen. Mm-hmm. Euh, soo wàccee. Mm-hmm. benn gouvernement bi su mm-hmm. nekké président yi ñu euh, courage ak responsabilité dévoiler exactement leurs hommes dévoiler que ni ñom do daal la laal si askan wi ku fi wàcc. xamal ne mu neen daal leen topé ci kanam yoon ak walu yoonal et que c'est une bonne leçon mu ñu ñoo baye benn mu daal di sét parce que si il est temps ñu arrêter di pied exactement. li nga xamné que moo di deretu askan wi ñu arrêter di leen piller réew mi

fekk ñun génne xaalisu askan wi. nous ah. ñun génne xaalisu askan wi. donc mhm. je pense que ce sont des def liggéey bu am solo. Mhm. Bassirou Diomaye Faye nag moom dina instruire exactement li nga xam ne di ak peut-être. Mhm. Euh, pas pour faire encore une fois mais pour faire la justice. Euh, c'est important. c'est important d'assurer c'est une nécessité pour le Sénégal. Mm. c'est une demande euh, si askan wi. askan wi ñoo koy askan wi ñoo koy exactement parce que rapport depuis 2019 bataille on nous parle de rapport. Euh, ce qu'on aurait publié, mmh. président Mexal Dark qui qu'on aurait publié exactement. Mmh. Mmh. Donc je pense que c'est une bonne chose. T'as dit Wednen lol, n'yamwa, c'est n'a pas comme on dit, Wednen lol, franchement, mm-hmm. parce que quand euh, on protéger, quand on protéger, t'as mini. Euh, France dit amal li nga xam nekk euh, Ruru di envoyé spécial et tant d'autres et tant d'autres donc je pense que ci biir loolu ah. damay ñew ci la réaction de Abdou Mbow hmm. euh, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar hmm. moom mu japp né traque bi le président Diomaye wara arrêté te concentré wu ci liggéey bi <laughs> parce que suñu sukkandiko ci limu wax japp na ni ka amna na yeneen yu gëna important yo xamantene président Diomaye ci la wara nek <laughs>

est-ce que hein? jubal nañ tamit. ah mais quand même ñoom ñooy wax ñom ñoy tontu sen bopp. <laughs> est-ce que jubal nañ tamit logiquement ñom ñoy wax ñom ñoy ton sen bob. encore une fois Bassirou Diomaye bo ba tey gisaguñu mu traqué kenn gisaguñu mu convoqué kenn. Mhm. gisaguñu mu tëj kenn. mais loolu la ñëpp di xaar. ah, ah mais loolu la ñëpp di xaar mais tamit nak fa tamit nak xaalis il faut ñu il faut ñu lii ko ñoom ñoo bëgg a askan wi si si si di alerter di victimiser wu déedéet. du fi ah, amé ah. le peuple sénégalais est assez mature. Mhm. pour préparer. si mhm. wàllu woowu noonu mhm. dañoo bëgg a jiitu si mbaxtal bi naan ay euh, dañuy traquer dañuy génneeg dem maa ngi koy gis aussi euh, fële sa seen TV euh, justement un membre de l'APR mhm. naan ay nañ jublu si liggéey bi mais li si mel nekkul liggéey ci liggéey bi milliards yi su ñëwaatee kan kan ak kan moo si war a mën a impacté day faciliter sax mission le président Diomaye bu ñu xamé situation financière réew mi. mais il faut mu def il faut il faut def des lieux. pour mu mën a jàll ci leneen. il faut que liens... C'est c' est vrai. mu def l' état des lieux. Mm-hmm. Mhm. le président son excellence je mhm. je pense pas que traquer quelqu'un traquer mhm. il est vraiment temps de passer exactement ces futilités il est vraiment temps de passer si luubal xaalisu réew mi si on la un projet ou kon suñu marché sans pour autant exactement respecter les codes du marché mais ce sont ces faits qui ont été reprochés à travers ces rapports publiés par OFNAC il faut qu'on dise en fait la vérité. Mhm. ginnaaw Abdou Mbow bu mu ñu jiitu si li na xam ne que moo di si euh, si li euh, si li gouvernement di def gouvernement bi li ñu bëgg a def ñoom anticiper na déjà. Mhm. et ku lire li na xam ne que moo le projet passif di nga comprendre. juguñu pour fayoon tool mais comme il faut yoon ak wala yoon daal def li na xam ne modi di liggéeyam. Mhm. mu daal servir une leçon encore une fois Diomaye averti na leen ko. je pense pas que. Euh, doo le nekk ni vous n'êtes pas euh, vous n'êtes vous n'êtes pas euh, averti mhm. mais si discours à la nation bi li mu wax leer na qui mhm. ki nga xam tam la laale nga si xaalisu askan wi mu nga ñëw mhm. ñu waxtaane ko nga delloo ko même su nekkee sax mën na la si compal dara nga yóbbaale offrir na bonne chance aussi les lanceurs d'alerte et tant d'autres et tant d'autres donc nit ki da nga war utiliser sa xel Abdou Mbow ñun mënu ñoo yóbbu suñu euh, xel di ñu utiliser di ñu di yaakaar ni bëgg anticiper les choses exactement donc ñoo xam ne leen xaar donc ñoo xam ne ni on peut assister à des tracts. Mm-hmm. xam ne leen xaar c'est la suite logique après tout nekk di alerter. Mm-hmm. Euh, si passeport diplomatique aussi si noonu la woon. Mm-hmm. ñu gis ni le porte-parole Moustapha Sarr génn weddi ko que ni. aucune décision n'a été prise pour euh, justement le retrait de ces passeports diplomatiques. ci ñu gis le président Macky Sall offrir